di nuyu njabootuk Serigne Sidi Muxtaar man ci sama jëmmi bopp maa ngi nuyu njabootuk sëriñ Saliou Mbacke gi yëpp di ci jiital Serigne seex Saliou Mbacke di nuyu ndongay tarbiya yi di nuyu tamit njabootuk Cheikh Baara Macky Sall de mënoon na koo bañ a jàpp waaw mënoon na koo bañ a jàpp. ndax jàpp gi amul dara lu mu koy jural daf koy wàññi rek waaye du ko yokk waaye mag yi jàpp nga ñëpp ah man damay dem ba kaso bi damay gënal bitti gi ndax kii mu jàpp te ñun defuñu dara dem ba ñun ñitu daara yi suñu kilifa yi xam nañ ne ñu ngi ñooy jàpp it donte ñu ngi koy ñaan waaye mayewul tu tànkam yu ndaw nekk ci kër gi ñu koy jël di indi fetal ñépp di ko gis toog lii ku ci waxul réew mi fi mu jëm du baax ñun sëñ Saliou yarawuñu woon nii te sëñ Saliou jóg waxiwul woon Macky li ñëw na fa ba tàyyi fekku ñu fa sëñ Saliou ñëw na fa de Macky Sall ñëw na fa fekk fa sëñ Saliou man mii fekk na fa mu yëkkati ay yére jox ko tey sëñ Sidi Moxtaar ñëpp làqu mu ñuy jàpp di ñu tëj ñu ñuy jaay doole de waxuñu lim def waxuñu lum deful lu leen neex wax leen moom la def dañoo bëgg mu ñibbisi war nañ sëñ Saaliwu de war na sëñ Saliou lan la xaaral xaaral. gaaw gaaw gaaw. jëlal ma jëlal ma de. Cissé xaaral xaaral xaaral. Kaba Kaba sama sëriñ Cissé. ay jël ma micro bi ah. li ngeen di xaar. voilà arrière tuuti rek ñu bëgg yéen. xoolal coupé leen li ci def mu def ko interview. arrière tuuti rek chef de quartier bi après mu wax quoi. après ñu ngeen jël chef de quartier parce que moom nee na te gars yi am na ñoo xam ne ngeen jël par individu xaar leen tuuti àggale rek kii dégg nga ko ah? mais xaar leen des na de ndax dafa am benn kii bu ñu war a déclaration bu war a dem quoi bu bàcc war a ah waaye def ko kii def ko kii waaw ah, xaar waaw xaar ah, xaar bàcc wax noonu mbokk yi ñoo ngi leen di jéglu bu baax a baax li nga xam ne euh, jot na fee xew euh, xolu murid di ñoo tooy rek te li muy wax nekk kàddu goo xamante nii ku ne xam na ne maanaam xol yépp ñoo ko taataan Euh, lenn ci li nga xamante ni loolu la ñuy dolli ci jataay bi di ko tëjee jox suñu mag sëñ Modou Dieng nga xamante ni mooy tëj jataay bi man maa ngi tudd Bàcc ma Massamba Gadiaga nekk secrétaire ci Cheikh Bara Ndiaye li nga xamante ni loolu lañ fas yéenee leeral ndax mbir bu amee euh, kenn ku ci nekk ni nga koy déggee ndax dégg nañ lu bari dégg nañ ba sunu sunu sunu nopp buur waaye may xamal askanu Sénégal di wax ne Cheikh Bara Ndiaye ci wàllu liggéeyam ak bépp doomu aadama boo xamante ni da ngay jëflante ak moom mu lay dimbale wala mu lay fayal location wala mu lay fayal depaas wala lenn ci li nga xamante ni loolu lay liggéeyee mu yenn ci ay garab yoo xamante ni xaalis moo koy wut amu ci lenn loo xamante ni seex Bara njaay moom moo koy génn ci poosam di ko jënd mbaa mu koy transféré ci ci ci wéefam mësta am Cheikh Bara bu amee ku muy dimbali day woo kenn ci liggéeykat yi ne ko yónneel ma diw nangam dépasse bu Cheikh Bara sax Cheikh Bara du ko génn ci poosam dépasse bu këram Cheikh Bara mësu koo génn ci poosam waxuma laa ko wéefam liggéeykat yii ñoo koy génn bët bu set cinquante mille francs lay dépassoo altene laa ciy génne génne ci talaata génne ci ajjuma yi nga xamante ni ci kër gi lay liggéey loolu dépassé ñaar fukki junni la muy altene ak talaata ak ajjuma bët bu set ci bis yooyu mu tudd bis bu nekk ñaar fukki junni la ci dépassé ñi nga xamante ni ñooy ay liggéeykatam ñi ci gën a néew salaire wallaahi xasim ñetti fan lañuy liggéey te juróom ñaar fukki junni ak ñeent la ñuy fayoo ko barke alquranu karim wa ma sax naa ilaa bi ma xam naa ñëpp loolu nag li ma ci li tax ma di ko wax mooy Cheikh baara réew mi jub réew mi defaru doomi réew mi xam lan mooy njariñal réew mi liy alali réew mi ñu ciy gis seen bopp rek moo ko tax di wax waaye seex Bara dara taxu ko di wax ndax sëñ Tuubaa defar na ko bu yàgg ndax koo xamante ni nee naa la say liggéeykat am na ci ñoo xam ne ñetti fan la ñuy liggéey juróom ñaar fukki junne ak ñeent la ñuy fayoo ko barki alquraanu karim ni mu wax dëgg la bu dul dëgg bu kàddu gi amul lenn loo xamee ne Cheikh baara dana ko yónnee muy ab wéef nga xamante da nga ciy gis gis nañ si morom Cheikh Bara kon de ku ko jege dëgg dëgg koo xamante ñoom ñaar dugalu ci keneen waaye li muy fay ci ay location boo génnee ci kër gi ñaari étage a benn bu ci nekk weer wu dee fanweeri junni la fay boo demee biir Dakar bari na fa ay kër ki appartement yoo xamante Cheikh Bara Ndiaye moo koy fay te dimbale dong te yàlla tax bari na si ñoo xamante ay jàngalekatu alquran lañ doon wallahi asim li ma si jubloo wax mooy Cheikh Bara amul lenn lu muy yaakaar ci nguur mbaa pouvoir te damay faral di wax ne lu bari Cheikh Bara ci boppam lii nga xamante da koy def sax ci wàllu analyse ci politique sax li mu koy yàqal ci ay liggéey bi kenn xamul ni mu toll kon nag loolu laa ci doon leeral ci lépp lu ngeen mën a dégg naan Cheikh Bara ay wéef lu ngeen ci mën a dégg loolu du dëgg parce que man lépp ci man lay jaar ak ñi nga xamante ñoom laa ko seqal bu loolu weesee dañuy nuyu dañuy gërëm bu baax a baax a baax Serigne Cheikh Saliou Mbacké yàlla na fi yàgg te wér muy Serigne Cheikh Saliou borom xel kom euh, jàpp na ci liggéey bi bu baax a baax a baax cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke ibnu cheikh Sidil Muxtaar di xalifa Sëriñ Baara Mbacke ba mbir mi àggee ci moom jógee ca doomam di taawam muy soxna may muunatu Mbacke ba mu ko ko yeggee ak lenn ci ñi nga xamante ni maanaam wëlërëy cheikh Baara boo kam dem ca moom nam ca war a taxawee taxawaay na ci ndax dem na ba ci xalif général de murid di kilifaam di kilifa ak ñëpp muy murid yëpp wax ko mbir mi na nam fa demee yëpp te loolu it rafet nañ ci njortu ndax gis nañ ne bii président Macky Sall dem na Touba te jàpp naa ne lépp lu ñu fa mën a waxtaanee mbiri Cheikh Bara Ndiaye moom loolu ci la bokk loolu mu sikki sàkko ma ko nattaliwu ma nag euh, ñoo ngi xamal ne bépp sëriñu daara ak bépp dongab daara koo xam ne yaa ngi yëngu ci alquran wala nga yëngu ci xam-xam ak bu mu fànn xam-xam bu mu mën a doon jëm ci alquran jëm ci daara daañu lancé ab mars ñoo ngi ciy waxtaan bu baax waaye dañ koy annoncé ba ñëpp dégg ngir ñu bàyyi ko xel fas nañoo yéene taxawal amal benn marche boo xam ne ñu ngi ko fas yéenee defee fële ca place de Obélix yaakaar naa loolu la wala noonu la ñu koy waxee incha allahu rabbi bis bu ñu jàppee bis bi daañu def conférence de presse comme nii ñu ko defee yëgal ko ñëpp waaye di ko annoncé képp koo xamante ni yaa ngi yëngu ci alquran képp koo xamante ni yaa ngi jàng alquranu karim ñoo ngi la ciy woo ci mboolem 46 départements yi ci Sénégal. ci mboolem 500 communes yi nekk ci Sénégal ci mboolem 14 régions yi nekk ci Sénégal ndakaaru lañ ko fas yéenee defee kooku ñoo ngi ko yëgal ñëpp di ko lancé ñëpp na ko ñëpp bàyyi xel ne insha allahu rabbi fas nañ koo yéene def bis bu ca def ko daañu wax kañ lañ koy def ak bis baak naka la ak organisation ba nañ ko fas yéene defee loolu ñëw ngi ko yëgal mbooloo mi yëpp kenn kuy def na nga ca bàyyi xel ne insha allahu rabbi daañu ko lancé te buñ ko lancé dana siiw bu sooba yàlla kon euh, ngeen baal ma Serigne Modou Dieng mii muy tëj jotaay bi du waxee kenn du waxaat ndax moom xam na kuy Cheikh Baara Ndiaye Serigne Moustapha Mbakkeem Cheikh Mamadou Amine Baara bi ko sëñ Baara yónnee ci màggalu Mbàkke Kajoor gii mu yët ko addee joojee mu ko yëtoon daf ko wax ne ko boo demee yaay sama lamiñ yaay sama kàddu loo wax Cheikh Baara ne ko Cheikh Mamadou Moustapha moo la ko wax kon kooku nag bu mbir xewee di ànd ak Cheikh Baara ci këri diine yi di ànd ak Cheikh Baara yenn ci kilifa aada yi kon bu mbir mi xewee mu am ci loo xam ne war na ko ci leer faaw mu taxaw leer ko ci looloo taxoon ñu ne leen ngeen may ñu rek bu soobee suñu borom mu yeggale kàddoom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi